bala ma wax si commentaire bi damay njëkk wax si sëñ Modou Lo ba noppi kan mooy sëñ Modou Lo ndax la ma doon bañ démb lépp gis naa ko eh, te commentaire yi rek moo tax sax ma def si démb vidéo parce que am na ay murid yoo xam ne biñ déggoo vidéo yi dem audio yi dem danoo commencé tiit defe ne lii lu bees la gis naa sax Waar def ci audio ne audio yi gàmm gi la non non noonu audio yi 2022 ba léegi mi ngi sama téléphone audio yi avant muy agsi internet bi ay nit envoyé nan ma ko man personnellement ma góor li ma dégg nu mu demee yaa ngi dégg ma am ci nag loo xam ne mën naa ko leeral te sama compte bi comme ni ma koy wax rek murid yi nga xam ne bu ñu jaaxlee rek xëy na am na si ñu bari dañuy daw ñëw xool sama compte di si ay ay résultats te barki Cheikh Salihu Mbacke audio yi deux mille vingt-deux la kan mooy sëñ Modou Lo Ngabou nag moo ki nga xam moo dëkk Ngabou musul génn ngaabu lan wax musul génn Ngabou depuis mu juddoo fala la moo ko lee fa sanc fa daaraam daara yi nag yàlla wuyu si ko fa mu tabaxaat fa ay daara lu war a mat ñeent ba juróomi daara yoo xam ne yëpp ay nit la fees dell ay dongaam duñu yelwaane moo leen di jox yére moo leen jox daal moo leen di toggal moo leen di defal lépp lu war ci ab donga sëñ Modou Lo Ngabou yemul ci daaraam yi duñu waaye wut fukki sëriñ daara teg leen fa yoroo leen seen kër di leen fay weer wu dee wuti tamit lu mat juróom-ñaari mbindaan ñoo xam ne buñ xëyee bale ak raxas ak togg toggal donga yi moom la leen di doyee ba noppi sëñ Modou Lo ci tabax hôpital bu mag boo xam ne ci biir ngaabu pour ay dongam di fa mën a fajoo ak waa dëkk ba ba noppi sëñ Modou Lo ngaabu yëmu ci tabax jumaa ju mag ca biir ngaabu waa dëkk ba ñëpp di fa jullisee yàlla may ko ci loolu yëpp ba noppi ngeen ne yéen yàlla du ko teg natt yàlla teg ko natt ci ay audio yoo xam ne moo ko wax te moom bi ko waxee maanaam pour ma gëm ne sëñ Modou Lo ngaabu bokk na si nit yi gën a gëm yàlla li tax ma ne bokk si nit yi gën a gëm yàlla lii ko dal nii mbooleem ku mos a dal ci gaa yu baax yi ñoom balxiis boo demee jàng seen histoire bi mu leen dalee ñoom nga xam ne àggoon nañ ci si ragal yàlla foo xam ne ñoom bu daan wax lu juróomi téeméer ni daanan toog yor xalima di bindi li ni wax ngir xam ne tadul génne yàlla ak yonent bi nee na àggoon nañ ci wax ne ñoom àggoon nañ ci bu ñu daan wax sax dañ daan jano àjjana ak sawara maanaam te bi leen yàlla nattoo ci jigéen dem nañ ba weddi yàlla weddi goo xam ne àgg nañ si ne dem dem def concours ne yàlla amut jël première balxiis àgg na si ah léegi yow tey ñoo ñëpp ñu dem ba seen histoire boobu noonu tey sëñ Modou Lo bi bi ko yàlla nattoo dafa génn dindi kaalaam toog janoog askan wépp ne maa ngi tuubal yàlla maa ngi tuubal yonente bi maa ngi tuubal Serigne Touba maa ngi tuubal murid ne wax ji maa ko wax waaye luutul amati si kaw suuf ndaxte lu ma yàlla nattoo la gëm naa ne lii yàlla ma ko teg am natu la te fi yàlla di xoole nattoom bi lii ko yàlla may lépp moom après bi mu ko mayee may yëpp da koy teg nag am nattu ba xam moom dana saalit wala am na ñoo xam ne dañ leen a jiñ rey nit te pourtant yàlla ci foofu la jaarale nattu bi am na ñoo xam ne yàlla da leen a nattu ci seen yaram baa mu natt leen seen jabar baa mu natt leen seen alal ba xam kii fii la ko yàlla nattoo te nangoo na nattu bi kon dañuy ñaanal sëñ Modou Lo Ngabou yàlla gën ko dëgëral yéen ñi nga xam ne da ngeen a jàpp ne lii lu bees la ñu xamale neen lii du lii doonul lu bees saay-saay si ñoo ko génneewaat pour yàqat